naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ngay ñàkk mbokki téléspectateurs yi Equivox TV maa ngi leen di nuy di leen ziar tey nag fi ngeen gis ma nekk nii xam ngeen ne tabaski mu ngi ñëw te lii ne sama ginnaaw wala fi ma taxaw xam ngeen ne kon ay tisi moo fi nax gis naa ay brodé hélas sama góos nag mooy Assane Fall taalibi sëñ Fallu mbër mi may seet nag fii la ne mais man Assane mais laa njëkk a waxal ba pare Global Textile réerul kenn Assane maa ngi lay ziar. waaw kat ñu ngi lay fay. am nga jàmm waaw am jàmm naka Global Textile ak préparation tabaski bi. Ah, di am kontaane si teewaay bi di am kontaane si yow mii sa jëmm ji parce que yow moom du du internet du làmb yow sama frère nga waaw loolu am na waaw. beneen daa boole bëri beeg jaay waaw day boole bëre bi boole ak jaay tis bi moom day jàpp si global bu baax a baax. waaw day ñëw di jaay. waaw moom day su amee combat bëri ji. bu amee combat dem bëri ji. looloo gën a wóor kon gars yi dégg ngeen ko ah dégg ngeen Assane Fall a ngi noonu borom global textile beleen ngi nii muy ni mel ni kon ah mbër mi ak ki nga xam ne moom mooy borom place bi. yàlla moo leen boole muy jàppante boo xam ne am na solo parce que tamit àddina li ci am solo mooy ay nit bu leen yàlla boole dañ koy sàmm sàmm ga nag mooy ku ci nekk rek da ngay am loo bàyyi ngir mën a ànd ak sa morom ndax nit bu ngeen dee ànd te amoo loo bàyyi du ngeen ànd ndax ñëppay juum Assane nag nit ku baax la beneen tamit nekk mbër nekk ci làmb ji bërki dem mu bëri ak bébé Birahim ah la 20 bi passé Fallou Ndiaye tëggoon ko combat boo xam ne defe naa hélas man dama kii sax tiit man ba jaawale mbër yi xamatuma ndax dóor yu métti ba ay jël la am ca maa ngi lay ziaraat. waaw ginnaaw ba ñu sant yàlla julli si yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur di gërëm suñu am di jàmm yi ak suñu supporters yi di lay gërëm yow mi Babacar ak sa caméraman bi parce que déplacement bi si naaj bu tàng bi yombul quoi di encourager Equivox TV li ñu bëgg yàllaa ko xam yàlla na ko yàlla defal ba site bi dem ba si kaw a kaw leneen di nag mooy lenn rek la mooy ñun ay xale lañu ay ndaw lañu te yaakaaruñu leen di du làmb bala ngaa ñëw foofu dama lay laaj Blindé kan mooy Blindé Blindé fu mu dëkk ak lu indi tul ndax Blindé man ci ay genre de combat yooyu armée bi yore laa ko xame woon kan mooy Blindé waaw Blindé benn xale la rek mu nekk si làmb dëkk parcelle unité waaw parcelle waaw fii laa defee lépp yaa ngi dégg dëkk parcelle unité 16 xam nga waaw waa parcelle tàggat ko si muy yëngu si làmb te làmb tamit mu bëgg ko bëgg ko lool mu nekk métier waa waaw Blindé benn xale buy dox la rek. jàng nga école. waaw jàng naa école wante soriwuma si quoi. waaw classe nante yi rek. sem 2 xam na waa classe nante yi rek. yéen ak sem ak ak classe léegi bi loolu amee belende bu ma ko laajoon tey métier ndax am na métier. waa am na métier. luy sa métier man menuisier laa doon def menuisier bois. menuisier bois waaw. da nga koo ba waaw mënu ko boole sama entraînement parce que am na foo xam ne soo fa tollee mënatoo def lenn lu dul concentration. voilà noonu la demee. lamb lan moo la si dugal Blindé. waa làmb lu ma si dugga mooy dama ñëw fekk samay mag di bëre samay grand di bëre ku si mel ni sama mag sama ñaari mag dañ doon bëre kenn ki tukki ne mu ngi France ku si mel ni Laay Zouka moom moo doon wuyoo kenn ki ñu koy wax ëmm la nekkoon ñu koy wax Malick man ma nekk xale bu ndaw doon football comprendre yaakaar moon sax dinaa dugg si làmb su ñuy dem entraînement rek ma dem football su ma football ba pare toog noonu di fooyee contact bi di fooyee contact bi ba mën bëre nag ante dugg ma woon si làmb sama benn copain bi ñu ab Abdou Ndaw am combat ñu préparé ndogu ma ak moom mu dem bëri daan te Abdou Ndaw mënu ma daan entraînement ma ne pourquoi man munu waruma mën a bëri looloo ma dugal si làmb nii. maanaam ci bés boobu nga yëg ne kii mbër la di entraîné te mënu maa te man du ma mbër nga ne man war naa naan mën a nekk mbër. voilà noonu la demee te moom ku mu jàpp si gars yi daan la. comprendre ma ne kon war war naa mën a si làmb quoi Abdou Ndaw lañ koy wax ñu koy canal 16 ñoo doon ànd xam nga la loolu moo ma dugal si làmb tamit ma dem tamit sama waa koñ booy gën ma bëgg puuse ma xam nga la samay grand dem ba xam ni carrément kii ku ko jàppale mu dem ñoom tam ñu bàyyi làmb topp sama ginnaaw. Euh, bi nga duggee si làmb ba nekk nga commencé. man ba ma duggee si làmb maa ngi nekk musuma maa ngi doon dem écurie Mathieu ma nekkuma foon. écurie waaw nekkuma foon dama doon dem di entraîner affaire yooyu wante man ba ma commencé bëre dugg si arène di bëre maa ngi commencé suñu écurie bu ma nekk nii Grand Médine boobu waaw bi. Ah, kon Grand nga nekk. voilà commencé daal carrément ci écurie. mooy parcelle fii. léegi parcelle ku ko wax wax làmba ndax li tax mooy defe naa famille Sow ñu ngi Parcelles Assainies ñëpp xam nañ leen muy Ousa Sow Papa Sow ak seen ay rak wax ñoom Xaadim Gajaga ñoom Moussa Dioum ak yeneen mbër ñoom yaaram ñoom yaaram Guèye ay match perara boobu nga lim bari nañu su leen di lim du ma fi jóge ah Modou sax ci génération bu mujj bi ndax moom mën naa ne ay ñi may wax nii ñoo ko jiitu Modou après la mook ñoom Garga Mbossé après la ñu ñëw parce que ñoom boo xoolee après la ñu ñëw nekk ay rakku ñooñu may wax yaa ngi dégg ba Modou tey nekk roi des arènes parcelle roi bi di fi yeewoo defe naa ne kon bi nga nekkee mbër tamit gis nga lu war a mën a tax dëgg-dëgg nga dëggal sa mbër parce que gis nga yaa ngi yeewandoog ñoo xam ne ay mbër kaamil lañ ko ku yeewandoog Modou Lo Papa Sow ak ñu mel ni ki noonu ñoom Garga Mbossé pour nga nekk pour nga gën a am lu la dimbali nga nekk mbër xanaa yomboon na. waaw dañuy santaat yàlla rek parce que ñun ay ndaw lañ ay xale lañ yàlla ba ñu ñëwee parcelle fekk fii suñuy grand yoo xamante def nañ si làmb loo xamante ni ñun defaguñ ko ku si mel ni ñoom Ousa Sow ñu ngi lim ñoom Xaadim Gajaga ba si ñoom Modou Lo ñoom Papa Sow ñooñu ay champion lañ ñooñu soo xoolee sax ñun ay ndaw lañ rek nekk seen keppaar nekk seen tànk suñ demee ba bëgg làmb tamit ñooñu ñu ngi si comprendre parce que ñun ñooñu dañ doon bëre ñu nekk ay xale yu ndaw si ñoom Modou yi ñoom Papa dañ doon bëre ñu nekk ay yu ndaw ñu ngi encouragé xam ñu nekk xale nekk si liggéey bi parce que ñun munuñu quoi lu kenn du wax kenn munu kenn xamul ku dul yàlla yàlla rek moo fi nekk ñoom tam ñu dooleel ñu xam nga ñu gis si ñoom ay qualité yoo xamante ni dañ koy yokk si lu ñu yor ak ñoom lu ñu yor ñu jël ko boole ko di góorgóorlu quoi. am na solo ñaata combat nga ma arène. man ma moo nekk sama quatorze combat. ñaata victoire. onze victoire. trois défaites kese nga. trois défaites la am. léegi kon yow yaa ngi ca yoon woo de macha allah. non ma man bëgguma di wax si biir làmb man de ko ma wax man fu ñu ma fu ñu ma fu ñu ma dugal nii. du sama cër. du sa cër man fu ma bokk ñoom xam nañ ko. buñ ko xamee te waxoo leen ko nuñ koy xamee. normalment dama war a bëree ñoom saakees. saakees man ñoom bu Malick ñaa dama war a bëree ñoom. dafa bu bu nu yokk problème yooyu. nekk ko xam nga. Ah, déedéet saakees yow nooy bëree saakees saakees romb la ci làmb ak Malick ñaa. ma lamb làmb balaa muy neex. waaw làmb balaa muy neex. waaw dox si kaw nit ki mu maîtriser la ngeen bëri cinq minutes. maanaam de maanaam bëri bi am juróomi minutes. voilà loolu lu koy waral nag mooy maanaam boog fi nga bokk lañ lay dugal. xamante soo doxee sa kaw ñu tenir la. Sa Thiès xalaat bu lekkoon semence tey boo doxee kaw mu tenir. non damay tenir su boobaa bëre bi dina neex di nga mën a li nga mën. di nga ko mën a wane. mais est-ce yow euh, cëfër cëfër ak jógub attaque am yow est ko yow. non yàgg nañ gis attaque ne attaque boobu jaaxal. maa ngi it ay loxoom doy na waar de. non loolu yëpp du garaaw. et puis ñooñu est-ce que say morom lañ tamit actuellement ci làmb. non làmb amut ku bëre 14 combats amatul làmb ñii dañuy bëre ñii ñu daje ci kaw rek amul kii kii la bëre la ki nga bëre la léeg-léeg non non làmb amul loolu làmb soo doon bëre di daan yaawu jaal di daan gaynde di daan yamb baam am ay nombre victoire sax war nga mun a bëre koo xamante ni yow war ngeen mën a bëre surtout ñun ñi nga xamante ne ay xale lañ ñun duñu simeeku si làmb ñu ne diw ak diw du combat am mais Sa Thiès dépassé wu la ci làmb tamit non non dépassé amu fi xam nga lan moo fi am ah nangoo bëre bëre bañ a bëre dem seeti leneen. et puis lam loo seetlu ci Sa Thiès ak Malick Niang ba attaque da nga jàpp ay nooy neex lañu wala da nga leen a mën wala. maa gis ni ay jàmbaar lañ ay champion lañ ni tey jii ni nga bëre ak ñoom sa ndam la ma nag nga bëre ak ñoom ñu ñu coow ni nga yàlla defal la nga am si ndam les feneen la lay yóbbu quoi te làmb la damaa xam ne làmb la làmb kenn mënul kenn mënul yàlla rek moo fi nekk ak ku góorgóorlu te ñun ñeme nañ affaire yi te ñeme nañ góorgóorlu Malick Niang xanaa kere ni mu indi bébé Birahim nga nga daan bébé Birahim moo tax nga koy laaj. damaa xam ne Malick Niang maa moom combat la du dërëm. kan ñaa du dërëm. bi leen de foo teg loolu. non dama benn defet la am di. waaw benn defet la am. même Ama ko daan ci lam nga ne du dërëm. dé soo déggee ma du dërëm ni ko gars fu ñu ko teg ak ñun fu ñu toll ak ñun lu ñu bokkee si làmb yaa ngi dégg est-ce que war mën a laale. Malick Niang Malick mën naa xeex de. non dara xeex ak làmb gis nga simple bi simple bi. musoo gis ñu fay ñu teg si vingt million 15 millions soo ko gis ñu teg ko si kon gars yi dóor yi la ñuy fay waaw da ngay xajam quoi. say loxo di dal. non non même su nekku loxo yi sax da ngay xajam te ñun dañoo bokk suñu xajam. keroog sa combat ak bébé Birahim combat boobu nu mu déroulé bu ñu ci dikkaatee. waaw combat boobu dama ko teg fu ma ko war a teg respecté ko ma xam ne am na fu ma war a yóbbu te am na foo xamante ne su ma fa génnee am na fu ma war a dugg combat bi jaral ma lu ne samay grand ak samay nit ak samay ñu ma war a jàppale ñëpp jàppale ma. comprendre man man nekk si ay entrement yu métti deux ans la def combat bi ñaari at avant Covid bi ba léegi yoo xam nga si dara comprendre ñu nekk si ay entraînement kon combat bi nekk woon combat bu ñu war a ñàkk yaa ngi dégg combat bu indi ndam la parce que gars yi dañ ci gisee mobilisation bu ma def ak génn bi fii soo ko fekkee doo nga non non sat ñu nekk si biti ñoo leen ëpp comprendre kon combat boobu nekku combat moo war a ñàkk eh, noonu la demee. ma gis na ngeen xeex xeex bu métti saxal xeex bi ba dóor ba ba dóor mu daanu am ci. waaw xam nga man jógu moon sax pour xeex damaa jógoon pour bëri soo xoolee lu ma doon doxee si koom pour ko moo tax. moom moo la xeex la moom moo xeex. parce que am na combat yoo xam ne soo bañee xeex soo nangoo xeex xeex. moom dafa ñëw ne dañuy xeex. dafa ñëw taxaw taxaw xeex ma xam ne kii su ma xeexul ak moom du ma bëreeg moom. tiitoo kon ci ngeen si xeex. non man aw ma lu may tiit làmb rek su ma naree tiit tekki sama ngemb sànni fële. waaw yee noonu la demee. nga ko ba mu wàcc. non làmb la rek dañoo def yàlla may ma ndam si kawam rek waaw dama koy ñaanal yàlla soo amaatee combat ku dul waa mbëru parce yàlla may ko ndam waaw. léegi tey su ma la laajoon euh, turu Blindé bi lu ko indi. turu Blindé bi dama nekkoon xale nekk samay biiru grand di bëre di fooye bëre benn grand boo xamante ni ñu koy wax ngañ mooy bëre mujj bi mu dem mu ne ma booy da dëgër quoi yow est-ce que yow doo tuddee sa bopp Blindé yow bis ni tey Blindé laa lay wooye loolu moo ti indi turu Blindé bi xam nga su ma ñëwee entraînement ñu ma Blindé Blindé ma ne comme demee ne nii naa ko jël rek dugaale ko quoi lu ma yàlla jox la rek. Blindé am na idole idole ci mbër yi mbër yi ci làmb xam ne da koo xooloon fan ko di ko roy. xam nga man mbër soo xoolee ñoom ñëpp champion lañu wante man sama grand mooy sama idole sama mag ma bu ma bokkoon ndey baa ñu koy ëmm xam nga idole mooy koo xam ne da koy topp di koy suivre di koy roy di koy mu lay jàngal bëri man sama mag moo ma jàngal bëri ëmm lañ koy wax ñu koy wax Malick man samay mag ñoo ma jàngal bëri waaw parce que ñoom dañ doon bëri yenn fois nit su ma daanee ñu ñëw ne ma nii ngay def nii ak nii ak nii ba ba ma dem ba bëgg a làmb kon su ñoom la dépendre man voilà man ñoom su ñoom la ñoom ñooy sama idole samay mag. Euh, su ma ñëwee ci simple bi tamit mu mel dañ la li ma la ciy gis bëri na trop nga koy bëree lutte simple tamit euh, li nga koy bëree bëri na lool Blindé. waa lutte simple bi lu ma koy bëree bëri na parce que xam nga dañoo ñëw pour compétition ndax ngay toog di xaar benn combat loolu da ngay ñàkk compétition te lit simple bi li ñu ko war a respecter normal sax su fekkoon dañoo bëgg jóg pour maanaam pour pour def ko liggéey li ñu ko war a respecter des na waaw ñun dañoo ñëw pour wut si xol wut si compétition loolu tax ñu siy dugg waaw ndax suñu ñun toll nañ si lutte simple foo xamante ni. yaa ngi dégg est-ce que su fekkoon dañ si jiital leneen kon neneen la ñuy ñëwee si lutte simple wante dañoo ñëw pour compétition def ko comme contact waa loolu moo ñu si dugal. ren am nga ci dara ci gagné wala. waaw am naa lu ma ci gagné maa ngi si àll bi waaw waaw si àll bi waaw. bàyyee goo ko ba tey defe naa yaa ngi ci biir de. non du mënuñu ko bàyyi. ah mënuñ ko bàyyi parce que compétition la rek. waaw ah, folo rek. ah da lay may ah, da lay may compétition rek. waaw ah, mais lay xamee. voilà noonu la dama seetlu leen ah le lutte simple bi daa mel ni mbëri ci ne. ñu ngi bëgg dominer arène bi léegi. ndax mën naa yow mii gis nañ keroog li nga def te yaa ngi continuer di ko def gis nañ Franc gis nañ ñoom rëg-rëg ak yeneen ñoom Serigne Ndiaye numéro 2 bëri ngeen juum yéen a ngi si lit avec Franc bi dugg ngeen ci ak doole te gis nañ ne seen combat pour ngeen ñàkk ko léegi day xaw a jafe. lan ngeen ëpp leen mbër yi nga xam ne duñ du ñu bëri li simple. non xam nga kuy bëri chaque jour ak xaar at wala ay weer nga soog a duñu bokk ñu bokk yow tey jii nii soo gëjee téye micro rek di defal nit interview rek soo ñëwee rek di am lu joué quoi ah, voilà noonu la demee nag loolu rek la. loolu la quoi. Mhm. tey mbër yi ne parcelle lim nañ ko léegi rawatina ñoom Modou Lo ñoom Papa Sow ñoom Franc ak ñooñu ñëpp gis nañ temps yi ñoom ñëpp ni ñu ànd nekk benn unité di liggéeyandoo est-ce que yaa ngi gisante ak ñoom est-ce que yaa ngi liggéey ak ñoom sa relation ak ñoom nu mu demee. waaw ay Modou ñoom Papa Sow ñooñu ay champion lañ gis nga Modou man dama ko naw waaw gis nga man papa dama ko naw parce que dañoo bokk si bëri yoo xamante ni kenn xeexalu leen ñoom ñoo liggéey seen bopp waaw ba ñuy nekk fii di di nekk si làmb di bëri di koy ñàkkate bëri woon na mbëri fi ne ñoom dañoo liggéey fight seen lay ba téye ba réussir si comprendre ñun dañoo ñooñu dañoo stable ñooñu amuñu lu ñuy dawati si làmb wala lu ñuy pirti pirti si làmb lépp lépp ñoo ko jaayante ñoo ñu ñoom dañuy ñëw rek di ànd ak ñoom nii rek muy def. mais maanaam su ma la waaw su ma la déggee amu ngeen lu ngeen leen di yokk daal wala. ñooñu amatuñ leen liñ leen di wax ñun ñuy xale booy ñoo war a góorgóorlu waaw ñooñu suñ leen gisee dañoo war a liggéey suñ leen gisul dañoo a liggéey ñoom suñu woowee dañu war a woo suñu woowul dañu war a woo parce que ñun ñoo ñoom ñooñu ñoo tax ñu bëgg aar bi yaa ngi dégg est-ce kon ñoom suñ leen gisee ñun ñu ngi nekk suñu liggéey suñ leen gisul ñu ngi nekk suñu liggéey parce que ñooñu def nañ fi loo xamante ñun defaguñ ko kon lu fi nekk mooy lan liggéey waaw ñoom mënuñu liggéeyal de ñun ñoo mën a liggéeyal suñu bopp parce que ñoom liggéey lañ lu ñu liggéey ba pare ñoom dañu mën a ñaanal rek topp ñu rek ñu conseil rek affaire yooyu loolu rek lañ mën te liggéey bu war suñu lay dépendre voilà. ma gis na parce que tamit weekend boobu danga ngaa gagné Boy Sine ah Franc gañe maanaam macha allah. victoire yi dugg biir parcelle bëri trop grand combat yu mag yëpp ngeen gañe ko loolu lan la lu lu maanaam nekk parcelle léegi. loolu sant yàlla rek la loolu moom sant yàlla rek parce que loolu la ñuy ñaan yàlla parce que kenn du si jël ndam di ko yóbbu géej waaye nga ko yóbbu Medina wala nga ko yóbbu Plan Jaxaay wala Kër Massar parcelle nga koy dugal kon ndam li génnul parcelle waaw loolu moom la ñuy ñaan yàlla yàlla na yàlla na continuer quoi mhm. voilà. Mhm. Modou noo ko gisee. Modou Ama mooy lu ma ko gisee mooy Ama mbër la champion la Modou tamit mbër la champion la comme lu ma waxoon rek laay waxaat Modou combat bi respecté na ko respecté boo xamante ni waaw Modou lenn boolewu ko wax quoi moom day jëf rek kon dañ koy ñaanal yàlla yàlla may ko jour boobu kattan bu mu jëfee ak xel bu mu jëfee yàlla may ko ndam si Ama. est-ce que Modou jëf ci Ama ba daan ko dina yomb ci moom. non xam nga ku bëree Balla Gaye bëree Eumeu Sène bëree Bombardier su demee ba di tiit Ama. ah na bàyyi bëri te Modou nekkul kuy tiit Ama parce que nee naa la ku bëre Balla Gaye Bombardier Eumeu Sène combat yooyu bis yooyu ñoo gën a rëy bisu Ama bi. Ah. waay waaw. lu tax ñoo gën a rëy. xam nga bis. ma bisam bis moo gën a rëy si bis bi bisu Ama laaj ma lu tax. lu tax mu bés yooyu gën a bésu Ama ak mu. voilà parce que miin na coow quoi. Modou ah. waaw. miin na coow nekkul bees si moom. am na combat yoo xamante ni nit yi ñoo koy rëy wante yow doo ko di nga ko rëyal sax wante ba dépassé yi yi nga jàll parce que am na lu lu lu loo xamante ni rëyoon na te jiitu na fi voilà foofu laay waxee quoi. Modou euh, ak euh, ci côté bëri xalaat nga ne euh, Modou mën na daan Ama ci bëri bi yoon. ci làmb ji mënta daan si bëri. Hmm. Modou képp ku mu jàppante war mën na la daan. Hmm. Mhm. képp ku mu xeexa mën na la doon nga wàcc. xalaat nga dóor mu wàcc am ci moo ko am. déggoo ma képp ku ma xeexal mën nga ko dóor mu wàcc. mu ñu bo ñu dàq xeex si làmb ji si la bokk. kon ku ma xeexal daal mën na la dóor nga daanu. waaw ñu dàq bëre ñu dàq xeex si la bokk. su doo su soo xeexee ak Ama. mën na ko dóor mu wàcc. mu du mën na dóor Ama. mu wàcc. Ama itam gune la de. non gune ak gune ñooy bëre. ñoo tolloo génération bi. Hmm. waaw. gis nga ne daal bu ñu weccoo ay coup Ama bu jëlee coup Modou. Ama champion la gaynde la. ande dama la wax Modou Modou wàccee na ku gën a diis Ama Modou wàccee na koo xamante ni moo gën a taxaw Ama Bombardier Modou daa xeex ak moom te da ko duma daa xeexee Eumeu Sène te da ko duma premier combat moo Balla Gaye lu ma gaaw gaaw dóor na ko ku làmb noonu lay demee rek kon Modou kenn du wax ay mun na dóor kii wala mun dóor ki loolu moom ku kay wax moom ay wax yàqu la rek. si ne na Papa Sow su ma la tàncee. non Siteu moom ak Papa Sow mu ngi bëree koo xamante ni réere na ko mbir. ku réere mbir moromam. Siteu. daa réere Papa Sow. waaw lu tax nga wax loolu. parce que Papa Sow na si ñu dàq bëri. si làmb waaw Papa Sow bokk na si ñu gën gaaw si làmb. Papa bokk na si ñu ëpp fit. Papa Sow bokk na si ñu dàq xeex. yow mi est-ce que sa kanam. non non gis nga taayu Papa Sow nu mu toll. loolu ngay wax lépp est-ce que Papa Sow da ko appeler Siteu. waaw xam lu tax ma wax lool loolu. gis nga Siteu taay bu mu am. Papa Sow su ko amul day tëj làmb téeku Papa Sow toll ni gis nga nu mu toll. voilà nu mu toll ak taayam nu mu toll ante jomam ak mun bëreem ak fitam ak xeexam moo ko indi fu muy ñëw man cadre làmb laay waxee te lu ma wax lu nekk dinaa la naa la wan ne ne lii ak lii moo ko waral parce que yéen si làmb ngeen di dund. Papa Sow nu mu toll ak ni mu nu mu gàttee yaa ngi dégg ak fu mu toll si làmb non yombul. kon bu ñu jàppoo bëri daal tiitoo ci. non non Siteu moom Siteu balaa muy comprendre. Hmm. làmb ji jeex suñu jàppante. bu mhm. ah, li nga wax ni doy na waar di. kenn ku nekk nag mun nga daan sa morom. wante favori man su ma koy jox papa laa koy jox. papa daane ne nu nit nit si làmb. kon daal si sa balaa comprendre arbitre daa eh, eh, verdict daa am ba ñaanal yàlla nag yàlla may ko nag ndax suñu ganaa la grand bu baax la. am na solo wax na li mu bëgg wax na ay xalaatam Franc ko gisee moom. ñoom ñëpp ay champion lañ daal ñoom ñëpp ay champion lañ waaw. ñoom moom koo koy jox. non mun na bëre ku nekk ñoom ñëpp ay champion lañ daal. Garga 2 Mama Lamine. waaw combat la. combat dañ koy ñaane yàlla yàlla may ko ndam rek. Mhm. am na solo léegi boo amoon loo fàtte bëgg ko wax lan lay doon looy tàggatoo ñu lay suivre Equivox TV. waaw sant ak gërëm ndax mënuñu toog jotaay yu mel nii te duñ gërëm te lii dama bëgg ngeen jël lépp bu leen bàyyi dara waaw ku si mel ni Assane Fall borom Global Textile sama nitu bopp la sama xarit la sama waay la waaw xam nga tey jii nii yombul ngeen ñëw seet si ma ma dugal leen si bërëb waaw du ma ne yàllaa ngi nii te gisuma yàlla comprendre dañoo du combat mu defar ay tiset joxe ko génne xaalis jox ma ba pare ànd ak man estat yombul quoi ku la ko defal te nekkul combat bi kese ku su mel ni prince business moom gis naa mu si taxawee ku su mel ni lat café gis naa tamit du si taxawee ku su mel ni aarona moom tam gis naa nu mu si taxawee ku su mel ni laxaat ah Matar Matar gis naa nu mu si taxawee yaa ngi ku si mel ni <clears throat> Euh, borom global textile Assane Fall gis naa nu mu taxawee damay jël nag nuyoo bi nag jël ko teg ko sama benn loxo bu ñuy wax sama benn grand bu ñuy mu Moustapha Kane dafa def loo xamante ne damaa touché dafa génne xaalis su bëri jox ma mu ne loolu doyul defar ay t sama open mu teew ma daan mu ñëw dagaale ma fii cancer pour oto yi mënuñ jàll cancer pour bi fii. gis naa lu mu taxawee si combat bi génne xaalis bëri jox ma waa parcelle en marche ñëpp maa leen di gërëm di leen sant ak sama grand boo xamante ni ñoo bokk ndey baay ñu koy Abdoulaye Diop mu ngi ba France yal na ko yàlla gën a taxaw fu mu ne gis naa lu mu si taxawee te gis naa lu mu si sonnee gis naa lu mu génnee jox ma loolu da war sax wante yombul quoi si ñuy bokk te dama koy sant di koy gërëm di koy ñaanal yàlla yàlla may ko jàmm ku si mel ni Mayib Mayib Sall taxaw na si bu baax Babacar Sall taxaw na si bu baax a baax a ku si mel ni man Mansour Sall tamit taxaw na si bu baax a baax ak sama benn grand bu ñuy wax Ndaw Sayer Ndaw gis naa nu mu si jàppee Sayer sama grand la dama koy ñaanal yàlla defal ko jàmm ku si mel ni Pape Sidi tamit Pape Sidi gis naa nu mu si jàppee gis naa bu baaxa a lu mu si taxawee ku si mel ni El Hadj Bambara gis naa tamit lu mu si taxawee yaa ngi dégg ku si mel ni Père Ba Père Ba tamit daa génn xaalis bu bëri jox moo ko Mansour Ba doomam gis naa lu mu si taxawee Mansour maa ngi koy sant di koy gërëm yaa ngi dégg ku mel ni tamit sama staff sama staff gis naa tamit jàmbaar lu ñu def ak lu ñu génnee ak lu ñu def démarche yi ñu def est-ce que comprendre gis naa lu ñu ci taxawee comprendre su may lim du ma fi joge ñi si jàpp dañoo bëri képp ku ma limul rek xamal ni carrément bindu ma te yoroo ma kaye boo xamante mun naa fàttali ku ne. boo ne ñëpp ñëpp mat. comprendre ku tamit as as gis naa nu si jàppee as gis naa nu mu si jàppee yaa ngi dégg di koy gërëm ci Jaan Baro Moussa Kanute Bois Soirée yaa ngi dégg hmm? kon gars yi la demoon ak Blindé ah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 bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ngay ñàkk